ginnaaw ba ko feebar bi di poliomyélite dabe ba muy nekk tout tànk Joseph Demba Senghor dékku bépp jafe-jafe ngir amal njàngam ni ay moroomam ba tey mu am li jaase yi taskatu xibaar. formation standard la def comme ñëpp euh, c'était d'abord le primaire secondaire après université département anglais la def 2005 2010 génne fa ak certificat de maîtrise après def concours CESTI. voilà 2011 2012 laa def concours bi mu jàll donc ma def formation foofu 2012 2013 avec le niveau niveau licence bi laa fa duggee woon ko waaye tey ak boobu boobule lijaase mu war a jànkonteel beneen jafe-jafe muy am liggéey ci bërëbu taskatu xibaar yi te dara waralu ko lu dul li mu nekk ab waay laago. boobaak léegi entre temps 2000. 12 2013 2013 2000 2012 2013 bi bon je crois que dafa ma dara dama inscrire en master donc au CESTI continuer en médias et communication mais fin fin 2014 bi ci la ñu am benn contrat au niveau de euh, du groupe Global Média Communication voilà donc foofu la ñu jëloon de septembre 2014 à deux à mars 2017 foofu la fonctionné quoi quoi en tant que journaliste en continuant en même temps de faire mon master au CESTI en médias et communication. maa ngi déposé bi ma fa jógee déposé naa ci yeneen boîte. mais jusqu'à présent aw ma un retour favorable am na foo xam ne sax man dama doon dem di suivre les dossiers moi-même avant sesti avant avant may dem global média communication nag bi ma amee sama diplôme journaliste déposé na RTS entre le 31 décembre 2013 j'ai j'ai déposé mon dossier là-bas mais foofu tamit amul retour amul retour à mon niveau man dama jàpp peut-être que <laughs> ils se disent que le travail de journaliste est fastidieux peut-être par rapport à certains faits surtout sur par rapport au terrain peut-être am na ñoo xam ne bu ñu la xamul buñ la gisee dañuy jàpp ne yow ni nga nekk handicapé noo ko def te man rédaction bi ma doon def je fonctionnais comme un journaliste c'est vrai que la plupart du temps rajo la woon dama doon présenter le journal de sport mais bon Euh, day euh, da doon am ay moment yoo xam ne damay génn sur le terrain def ay reportage terrain et tout ça les couvertures normales comme ni ko ñeneen ñi di defee noonu laa ko doon defee quoi. askan wi di faral di am bët bu ñuy xoolee ñi nga xam ne ay waaye laago lañu muy xeebeel wala di leen di tuutal moomu Joseph mësa a dund li ni mel. boo gis fi Sénégal mës nga dund situation boo xam ne daje nga ak nit jànkoonteek moom def moom mu wóor la ne kii xeebee na la. sa sa sa sa laago bi nga amee mais nag loolu yëpp ci bopp bi la parce que ñun dafa am fu ñu jaar man élève centre Talibou daabo la suñu maître CM2 dafa doon dafa amoon période yoo xam ne day teg craie bi fële du wax lu jëm ci histoire géographie wala ay éducation civique lim ñu doon gëmloo mooy li ngeen di liggéey ak li ngeen xam liggéey rek mooy fay seul le travail waa ji jiite li nga xam ne moo di association des handicapés diplômés du Sénégal di wuyoo ci turu Serigne Gueye di indi seede yuy firndeel xam-xam ak mëninu Joseph Demba Senghor si bile métier laata rekk muy lancer appel ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi. nit la koo xamante si nii donc am na xam-xam am na yar aussi donc te loolu loolu loolu loolu mooy mooy mooy nit quoi surtout boobu nit boo amee yar rek. Euh, loo ci dolli da ngay dem donc mu nit koo xamante mu nekk nit koo xamante si nii ay collègue am ñenn ci ñoom wax nañ ma ci ñoom wax nañ ma ci moom loo xam ne man gis naa ko ci moom mooy vraiment ku man métier la ku ko xam la aussi vraiment loolu nag mais gis nañu ne lenn rek moo des mooy man dama jàpp ne handicapam moo tax jusqu'à présent liggéeyu parce que soo xoolee ay collègue ñu ci bari ñu ngi liggéey et ñoom nangul nañ ko xam-xamam et man mii man su ma nee ndaanaan la rek ndaanaan la parce que xam naa ko ñooy nekk lu bëri donc vraiment il est le meilleur dans son domaine quoi franchement mais comme au Sénégal loolu moo fi nekk quoi donc da ngay da ngay da ngay dañuy gis ne bon donc entreprise privée yi donc bu ñu boo boo déposé par voie électronique donc boo dañ lay soxla donc mais boo boo ñëwee ba ex ba def entretien rek da ngay gis ne 90 pour cent mooy handicap bi mooy dérangé. waaw donc loolu moom mooy difficulté yi nga xamante si nii eh, handicapé dañ koy jànkonteel président de la république du Sénégal mu appliquer loi d'orientation sociale bi parce que loolu décret yooyu bu ñu ko bu sañe woon décret yooyu donc problème bi day réglé wu quoi day réglé parce que am nañ fa 15 pour cent boo xamante si nii bu ñu ko jagleeloon handicapé bi donc yaakaar naa amul benn handicapé buy jàng te doo am liggéey Joseph Demba Senghor gëm yàlla lool ci li tey woyal rekk di yaakaar ni biddéewam dina mësa tàkk. donc maa ngi xaar di déglu.